waaw bu ma nuyoo euh, suma naataango yi ma bokkal plateau bi euh, professeur Wele Karim Diakhaté ak euh, Jibril Ñing nga may ma rek ma am njaal bu ma njaal Sénégal yëpp mooy gaal gi ñu ne dafa suux fële ci waaxu Cap Vert yóbbu woon jóge fii ci Fass Boye yeboon téeméeri nit ak benn mais ba sànq nii daal trente huit personnes lañ ci jot a gis yu ànd seen bakkan. Hmm. maanaam ñu jàpp ni que ñeneen ñi euh, daanaka dañoo ñàkk seen bakkan ci biir ndox mi. Hmm. ñu koy ñi koy jaal Sénégal yëpp. Hmm. di encore attirer attention autorités yi ci ces départs massifs. de jeunes. parce que mbir mi ni yematul sax ci géej gi yematul ci désert bi mais léegi nit ñi sax dañuy dajale jël seen billet avion wàcc ay dëkk yu mel ni Nicaragua wala feneen jaaree fa dugg États-Unis loolu yëpp pour wane lan mooy indi sujet bi ñuy waxtaanee pour wane naqar gi nekk ci dëkk bi c'est-à-dire njëg yu metti njëg yu cher yi difficulté bi yi nga xam ne moom la nit ñi di jànkonteel matin midi soir mhm. niveau de vie niveau de santé et tout li nga xam ne amul tey ndaw yi ndaw yëpp mhm. la majorité des jeunes jàpp nañ ni que loolu mënatuñ ko retrouver Sénégal mhm. moo tax certains ont choisi cette voie bi nga xam ne mooy cette voie de de de l'immigration loolu pour justement c'était pour camper revenir sur le débat sur le débat mooy maanaam ci njëgu prix yi mhm, mhm. xam nga temps yee dañ fi toog di wax waxu électricité bu yokk indi mhm. fi mbirum euh, oyofal oyofal bañ koy jaay Sénégalais yi fii y a quelques années dañ ne compteur bi boo ko jëndee yaa ko moom musuñu ci wax sénégalais yi TVA wala li yëg li yëg lii cest à en fait c'est les termes du contrat entre ñii di les prestataires de service en l'occurrence ku mel ni Sénélec ak les contractants yu mel ni sénégalais yi man yow ak keneen ce sont les termes du contrat qui sont régulièrement biaisés parce que lañ lay wax ci njëlbeen bi dañuy dem ba jëmi jamono ñu changé ko te yow doo ko yëg mooy benn li nga xam ne mun na jur jiixi jàq c'est-à-dire moo tax des fois on a on assiste beneen bi ci li nga xam ne mën nañu jëfandikoo mooy téléphones yi internet beeg crédit bi. opérateur yi fi nekk li ñuy def Sénégal sax ñu ko def beneen dëkk Sénégal rek nañ ko sañ a def. tey nañuy toog tey tey tey décider nii forfait bi changé nañ ko du ñu woo Sénégalais yi du ñu yëgal Sénégalais yi. mais lii li ñu leen doon defal li nga xam ne moom la ñu woon parce que c'est un contrat. tacite li ñu signante woon décider naa man opérateur sangam changé ko mais loolu yëpp day yokk. ci li nga xam ne mooy yokku njëkk nga ñëw ci prix denrées yi. Hmm. balaa ñoo ñëw ci prix denrées yi mais li nga xam ne moo gën a fës gën a sonal sénégalais yi mooy le loyer. Hmm. fii yàggul il y mois le président de la république tout le gouvernement daje taxaw daal di ne non loyer dañ koy wàcc wàññi ci nii wala ci nële. une loi qui a été votée depuis 2014 ba tey jii pour mu jël effet c' est tout un problème tey le loyer gën a yokku à Dakar tey jii le loyer gën a yokku à Dakar a pas de solution. njëg li tey ni ko waxee ñu naan la soble bu subaa ñu ne la tomate bu gannaaw subaa ñu ne la bineekar xam nga loolu yëpp lu koy indi pas Maguette. mooy que on est un pays bi nga xam ne su suñuy dirigeant dañu jàpp ni que ñun waruñu produire dara mooy maanaam ñun. lépp li nga xam ne dañ ko war a consommer mooy maanaam lu ñuy lekk wala lu ñuy sol dañ ko war a jéggaani mhm. ndax lan loolu parce que ñoom dañu jàpp ñoom li ñu jàpp mooy que pour entretenir seen train de vie mooy maanaam entretenir la marche de l'État mhm. mooy il faut des taxes te taxes yooyu bu dee soble bi ñu ngi koy béy fii te mën nañ ko béy fii ci Sénégal pomme de terre bi mën nañ ko béy fii parce que ñu ngi koy béy fii ci Sénégal mhm. mais da di nañ koy béyee yi ñu ci a ca port ba duñ ko am. moo tax tey il préfère tuer l' agriculture sénégalaise euh, le terme est peut-être un peu exagéré. Mm-hmm. il préfère euh, réduire les chances de développement de l' agriculture de l' agriculture sénégalaise. Mm-hmm. pour permettre des produits importés. Mm-hmm. loolu nag moo tax quand tu à la merci de l' extérieur <laughs> Maroc bu ko neexee tey mu ne du ma jaay sama soble comme ni ko Inde dafee woon du ma jaay sama ceeb. mais bu boobaa ñun on pâtit ou bien on est obligé ñoom njëg bu ñu koy jaayee nañ ko bëgg a jaayee ñu nangul leen ko nañ koy jëndee nag foofu ci bitim réew forcément bu ñëw fii day impacter sur le panier de la ménager Pape Maguette lii mooy le problème du Sénégal. d' accord euh, léegi loolu nga xam ne mooy problème bu Sénégal bu ñu nee inflation professeur ñu ne euh, hausse la boo xam ne généralisée et persistante sur les prix de manière générale léegi loolu am loolu muy inflation li koy indi ñaare. fekk seen i Pape Sané wax euh, lan la ñàkk mën la wala comme ni ko Pape waxee ñoom ñoo préféré tuer suñu économie euh, pour mën a jox njariñ waa bitim réew nga xam ne bu ñuy dugal daañu mën a tiq dara ci impôt yeeg taxe yeeg yooyu ci aju maanaam ñàkk mën la wala stratégie la boo xam ne ci ñoom la jógee. waaw euh, xanaa di programme mënu ko ji